salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw incha allah. alhamdulilah. alhamdulilah. waaw yaa leen doon waxtaanee léegi nga rëbb léegi rek léegi rek dafa am benn soxna su nekk France chrétienne la sax Marie la tudd moo doon moo doon rafetlu seen doxalin rek ak di santaat ku baax ki rek di di expliqué daal daal ne ñu Sénégal xamuñu sax waaye jeune daal jàpp na ni kenn bañu ko waaye bu amee ñu ko bañ ni ko ñu ko bëgg fuuf daa ne ndegam ay chrétien ñoo koy bëgg di ko war maa ngir li ko yàlla defal fan rek nga dugg si ba jógee àggagul sax nga dugg si macha allah